grand combat grand combat Boy Bouba ak Abou Ndiassane numéro 2 arbitre sifflé na grand combat bi nekkoon ci diggante Thiara 2 ak Albouri ndeysaan combat bi grand combat bi dafa yàqu moo tax ñu jël Abou Ndiassane numéro 2 bu mag indi waaye Boy Bouba ñu gis fa général bu Malika Bulldozer ndeysaan kii di Abou Ndiassane numéro 2 Abou gis Liss Ndiago gis Laurent ndeysaan gën a moo tax lamba ngi doon xale xoolal xale yi niñ taaroo si kaw tilin bi ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan arbitre baa ngi wax ñoom nee leen dafa guddi arbitre sifflé na gannaaw ko noonu diggante Boy Bouba Boy Bouba ak ak Abou Ndiassane numéro 2 ay saan xale yaa ngi noonu maa ngi nuyu waale buur seedi caat ay saan suma nit la suma lépp la arbitre jox na Bouba avertissement jox na gannaaw ñoom ñaar kenn ku ne bi mu amee benn avertissement Abou Ndiassé numéro 2 at Boy Bouba ñu ngi dem latéralement ñoom ñaar Abou Ndiassé si bu ñu suuf raxasu ay saan Abou Ndiassé numéro 2 ay ñu ngi lewtoo ñoom ñaar def nañ latéralement ba seeti saaku yi ñu taxaw saaku yi fekkiwul kenn saan abu soo xoolee abu njaase mi ngi dox si kawam saan buubaa ngi def latéralement abu njaase at buubaa abu njaase at buubaa jam na ko Sakuy eh, fekkiwul kenn Bouba dëpp na ko naax Bouba a dëpp na ko naax Bouba bu Malick Abou Ndiassé Abou Ndiassé numéro 2 at Bouba ta ñaari xale yaa ngi noonu dañoo lewtoo ba toll ak Sakuy dem lunkum daje ñoom ñaar ndeysaan Abou Ndiassé numéro 2 at Bouba abu Ndiassé numéro 2 at Bouba at Boy Bouba ñoom ñaara ngi noonu ndeysaan ñu ngi def épreuve de force ngi ngi puusante ñoom ñaar ñu ngi puusante rek ñoom ñaar abu Abou Ndiassé def rokos na bu sew Abou Ndiassé at Bouba numéro 2 wala nga ne Boy Bouba Abou Ndiassé numéro 2 at Boy Bouba ta ñaari xale yaa ngi noonu saan ñu ngi jàppante ñoom ñaar fii plaqué mun na see am oñ lëg daw laali plaqué ndax taxawaay bi taxawaay plaqué la si ñoom ñaar ñëpp Abou Ndiassé numéro 2 at booy Bouba ndeysaan ndeysaan Abou Ndiassane numéro Abou Ndiassane ngi rokos bu baa ngi bëre Abou Ndiassane ngi rokos Abou Ndiassane ngi rokos Abou Ndiassane bu baa ngi bëgg a bëre nga xoolee bu baa dafa jàpp rek Abou Ndiassane di dóor ndeysaan Abou Ndiassé numéro 2 ngi dóor Abou Ndiassé numéro 2 ngi dóor Abou Ndiassé numéro 2 at booy bu waa soo xoolee Abou ba fàq du am Abou Ndiassé jàppoo di dóor ba wóor na Abou Ndiassé jàppoo di dóor ba wóor na ndeysaan bu baax mi ngi jàpp Caam Bouba mi ngi jàpp Abou Ndiassé numéro 2 at booy Bouba na ko mu bañ saan soo xoolee Abou Ndiassé da ka pàq booy Bouba demul at bi ate na am na deux avertissement xale yi dañoo bëre di xeex di bëre waaw man arbitre yi jaaxal nañ ma nag Boy Bouba at Abou Ndiassé Bouba remise na ko jël na ko mu bañ Bouba ko Bouba jël na ko ko Abou bañ eh Abou Ndiassé da kaa jël Bouba daw remplacé ko oh xale yaa ngi bëre oh yaa ngi bëre lambu xale ay saan def na demi flexion moom Abou Ndiassé waaye Bouba dafa dafa yónni tànk ba sa ginnaaw bàyyi ko fa booy Bouba Abou Ndiassé Bouba songale na ko Abou Ndiassé la ngaan bàyyi booba saan booy Bouba Abou Ndiassé numéro 2 booy Bouba fàq ko Bouba at Abou Ndiassé soo xoolee Abou Ndiassé da koy puus pour mu gi Abou Ndiassé be Abou Ndiassé lu mu wax arbitre woo na eh, leen ñoom Touba am na trois avertissement Bouba am na trois avertissement soo xoolee kon dañ naan Abou Ndiassé moo avantage ci combat bi dañ naan kon Abou Ndiassé moo avantage ci combat bi Boy Abou Ndiassé numéro 2 dañoo tolloo taxawaay ñoom ñaar tolloo doole saan ñoom ñaar ñëpp làng la ñuy bëgg a bëre làng làng la ñuy bëgg a bëre soo xoolee ci saako la ñuy bëgg a ñëw pour bëre ñoom ñaar ñëpp dañu ñëw ba si saako yi pour bëre Abou Ndiassé gi dóor ba dóor mu daanu doom ba dóor mu daanu doom bu baa ngi fayu bu ba dóor mu daanu doom war na ko ndomba hee bu baa génn na si hee bu baa bëre na bu baa bëre na ba génn jël na ku Abou Ndiassé taw def na taasoo bu ba daw fël ko génn no xale yaa ngi bëre non lamb xale waay lamb koy def xale yi dañuy bëre waay lamb xale koy def ndeysaan Abou Ndiassé bëtëraat na ko da koy daan wala faax na Abou na trois bi ñu xool buubaalu mu na Abou Ndiassé libéré ba wóor na booba buubaa waaye xale yaa ngi bëre waaye lambu ji na waaye xale yaa ngi bëre waaye yaa ngi bëre waay xale yaa ngi bëre ndeysaan xale yaa ngi bëre ndeysaan xale yi waxtaan bu xale yi bëri nañ xeex nañ xale yi bëri nañ xeex nañ doomu takko Ndiassé numéro 2 gannaaw bu mu demee Ardo ñëwaat gannaaw bu mu demee Ardo ñëwaat ndeysaan taxawal temps bi jeex na ndeysaan sifle moo leen boole moo leen di taxale saan mi ngi leen di wax ak ñoom nee na am nga ñetti avertissement nee na Boy Sousa am nga benn ndeysaan waaw day li roolu course saako yi lay defar ndeysaan ndeysaan loolu baax na course gannaaw buñ mi temps wee ñëw nag fii nag coach yooyu daan ndax fii suñu coach la boo xoolee Bouba dox na si kawam nag boo xoolee Bouba mi ngi dox si kawam Bouba ngi dox si kawam at bi dafa siluwaat rek Bouba Bouba dox si kawam Bouba ngi la Abou Ndiassé doon def si premier mi-temps yi fi mu toll dafa mel ni moom la Bouba bëgg a def dirisé saan Bouba ak bu Ndiassane numéro 2 Bouba Bouba xeex na waaw mais Bouba lu muy def nii Bouba mi mais Bouba mi eh Bouba daa dem dañoo mitaa takk laa ilaha illallah <coughs> dañoo mitaa ñëw rek Bouba takk waaw Bouba mi a dañoo mitaa ñëw rek buuba ak takk kur ba ñu mel ni mbàccam gerte Abou Ndiassé demaat na ardo ardo bii amul soow de ardo bii alcool moo fa nekk at coton at bétadine waaye gars yi da leen bàyyi xel ne démb maa duggoon ci piscine bi démb maa duggoon ci piscine bi da leen ko bàyyi xel doole doole taan taan bana dem na ardo dañuy fomp wala démb maa duggoon ci piscine bi waat na gannaaw ba Abou Ndiassé demee ardo ñëw Bouba am na quatre avertissement Abou Ndiassé am na deux avertissement Abou Ndiassé at Boy Bouba Boy Bouba ngi dox si kawam Boy Bouba ngi dox si kawam ndeysaan Bouba dafa xam ne fi toll nii jël na quatre avertissement Abou Ndiassé jël ndax nooju wala waa waa Bouba Abou Ndiassé lii la Eh, mbaru buur ba daan ko mbaru caat ba daan ko ay waay mbaru jawrin mboor ba daan ko mbaru zoro ba daan ko oho booy buubaa ngi noonu ndeysaan zoro ngi booru si kawam eh, xoolal ma booy ba malika benn baraak yëmbal buun xale noonu ndeysaan mbaru jawrin mboor baa na mbaru laay baa noonu ay waay mbaru buur géwél ba daan mboru buur géwél ba daan na mboru buur géwél ba daan na